kon yow sama mbokkum jullit bu jigéen yow mu ñu tuddee sunu émission bii di uxta ad'uuki ilal janna muy yow sama sœur kaa ñu ànd jëm àjjana maa ngi lay wax day la yii nga teg ngir dama bañ ku ma beddi mbaa ku ma saboote mbaa ku ma jàppee ku an yeere ma lay wax ne dëgg dëgg day yow sama mbokkum jullit lii du ay lay mooy yow mi nga xam ne tey yaa ngi bañ a muuru ngir calculer ku la saboote ngir calculer ku la dëkkal fenn fi ngallaawaay nanga ragal yàlla te xam ne di nga wéet ak sa boroom waaye yow sama mbokkum jullit bu jigéen yow mi nga xam ne tey yaa ngi ragal matal sa muuraay ngir bañ ku la saboote yaa ngi doon jilbaab démb wala yaa ngi doon niqaab démb waaye tey lan moo tax nga dellu ci ginnaaw mooy tey ay nit tey ñi ngi naan la yaa ngi baasu ay nit tey ñi ngi naan kii moom ban dëkk la jóge wala am na ñoo xam ne tey ñi ngi woote woo muuraay waaye churuut ya ca daje muy règlement ya nga xam ne daa war a mate tey sañu koo def sañu koo matale mi ngi bañ ku ko beddi wala mu bañ ku ko xeeb wala mu bañ mbokk yi ku koy saboote xanaa danga fàtte ne lii sa ndigalu boroom la xam nga ne ki matale muuraay ab mbokk jullitam di ko wax naan ko war nga caa mën a calculer say àqu waajur ka lay digal loolu ndax dina matale ndax santaane yàlla lañu war a jiital wala santaane waajur lañu war a jiital lan moo tax tey nga sàggan di mbubboo sa diine ngir ragal ku la ŋàññ nga fàtte sa digganteek sa boroom yow sama mbokkum jullit ndax borom bi subhaanahu wa taala danga koo jàppee koo xam ne dañ koo mën a nax su fekkente ne doomu aadama mooy teg ay mbiram ne mbir yi mu teg kenn du ko jalgati kon fa maa baalu borom bi subhaanahu wa taala ak màggaayam yow sama mbokkum jullit ma jox la exemple ki teg crédit am di ko jaay nga ne danga bëgg crédit ba jënd carte ba mu ne pour nga dugal carte bi sa téléphone code nangam ak nangam ngay jiital masalan mu ne la jëlal 9 nga ne man jëluma 9 6 laa bëgg ndax 6 dafa nuroog 9 toogal ci sa am fulla ba xam sa crédit day dugg yaakaar naa de di yàgg ci 6 te doo am crédit bi isnillah crédit bi moom la la koy may mooy nga jaar ci 9 bi nga xam ne moom la la jox moonte day loolu du dara nit a ko def rek teg ay kotam waaw nga ne man nag ab jullit laa damay jaamu yàlla waaye nii laa koy defee ndax nii laa ko santiire te sax nag nii moo ànd ak jamono nga ne dinaa xijaab waaye ci sama biir xijaab man daal dama koy moderniser lu tax nga ne ndax loolu moo ànd ak jamono subhanallah waaye yàlla mi mi nga xam ne moo tëral ay mbiram te bind jamono moom xam li ànd ak moom saa su nekk nag kon dëgg-dëgg day ki lay woo ci muuraay du farata ki la koy defal aada ki naan la doxal sa ndaw ak lan moo ko fi jar yow sama mbokkum jullit na nga yëg ne kooku mi ngi lay nax góor góorgóorlul nga dawal sa xel bul xaar ba dugg ci bàmmeel nga doon koo xam ne dangay réccu te fekk na lala raw mënatoo koo dabu kon yow mi nga xam ne tey ñi ngi lay xas ñi ngi lay tuutal ñi ngi lay doyadal ñi ngi lay rëbb ñi ngi lay saboote dëgg-dëgg day dañu lay wax ne lakil faxru wal masuuba puukarewu ak ay yool ñeel na la lu tax ndax jullit nga nga sol sa mbubb kon yow danga war nekk ku dal danga war a doon ku fier ci li nga nekk waaye itam nga yëg ne ab yool ñeel na la lu tax ndax yaa ngi tegu ca santaane borom bi subhaanahu wa taala kon dëgg-dëgg day lakil faxru wal masuuba nga yëg ne itam lii ñu la def defoon nañu ko sa yenant sallallahu alayhi wa naam defoon nañ ko sa yenant fa laqad istahza'u bi nabi sallallahu alayhi wa defoon nañ ko sa yenant kon dey fa haza huwa tariqul anbiya wa saalihin na nga yëg ne lii mooy yoonu ñu baax ñi na nga yëg ne lii mooy yoonu yenent yi ak yoonu ñu baax ñi yoon bi nga tege muy yoonu njub yoonu def santaane yàlla yoonu daw ab tereem yow jigéenu jullit nga solo ni la sa borom sante na nga xam ne yoon bii dey nga jël ku ko mës jël ku nekk ay lor fekk na la ca sa yenent sallallahu alayhi wa xas nañ ko ŋàññ nañ ko jiiñ nañ ko ab ndof kon yow tey jiiñ la ab réer mbaa ëppal ci diine mbaa jiiñ la li nga fi indi lu bees la ngalawaay bu mu tax nga dellu ginnaaw ndax nag kuy dem ca yoon ña la jiitu woon ca yoon ba nelaw boo demee ca yoon ba di nga gis nangam ak nangam ngay dem di ko gis war ngaa am yaakaar te xam ne yaa nga ca yoon ba kon yoon bu rëy bii nga soobu mooy dund ci sa diine diine ju set diine ju leer diine joo xam ne raxuñu ko te du ay caaxaan na nga yëg ne bu dëggoo bari ay lor yoo xam ne yu baree bari di nga jànkonteeg moom kon nga la nanga nga góorgóorlu nanga takku na nga muñ nga delloo mbir yi ci sa boroom nga xam ne tey àddina bi ñu tollu moo bari ay tooñ àddina la boo xam ne su dee fa ak caaxaan ñu dooleel la waaye su fekkente ne dama bëgg a góorlu ngir jëm ci sama boroom ci ay santaaneem ñu xatal la ñu metital la te ma ngay tàmbalee ca ña nga xam ne ñoo la gën a jege liñ lay njëkk mooy ñetti kañ yi kañ nga fi juddu kañ nga fi jàng kañ nga fi xam ba mën a jàngale di nga dégg moo dooj di dégg moo waane di dégg ne moo ëppal waaye nag yow jullit ginnaaw ba nga xamee la la war sa digganteeg sa borom nga doon koo xam ne dangay góorgóorlu kon wax yooyu xamal ne wàññiwu la dara xamal ne itam du la taq fenn xamal ne itam du la dolli lu dul yokkute sa digganteeg sa boroom nga bàyyee xel borom bi subhaanahu wa taala bi muy wax yeneen taam ne ko wasbir ala maa yaquluun waaye wahjurhum hajran jamila na yenent bi sallallahu alayhi wa sallam muñal li nga xam ne ñu ngi la koy wax muy ñaawal yeeg mokka yeeg tooñ yeeg borom bi subhaanahu wa taala ne ko muñ ko te nga gàddaay leen gàddaay boo xam ne bu rafet lay doon kon mbokk yi di wax ne incha allah sunu axawaat yi nga xam ne ñooñu doon topp ci sunu émission bii di uxtaa ad'uuki ilal janna fa halla ajabti man da'aaki yow sama sœur yow sama mbokkum jullit bu jigéen ñi ngi lay woo ngir ñu ànd jëm àjjana di laaj ndax dinga nga wuyu li nga xam ne mooy sunu wootee di njottu ne incha allah di nga wuyu sunu wootee yàlla nañu borom bi subhaanahu wa taala defal ñu tawfiq te jubal ñu ca la nga xam ne moom la gërëm waaye mu wërsëgal ñu àjjana bi xayri xisaabin wala azab mbokk yi di wax ne incha allah fii la ñuy yëkkatee sunu jotaay di leen jox dig daje ci sunu baneen jotaay incha allah lépp lu ci jub ci tawfiiqu borom bi subhaanahu wa taala la lu ci dëng ci mànkite doomu aadama la dafay dellu ci ñun ñu ngi koy jéggalu borom bi subhaanahu wa taala te di leen ko jéggalu jërë ngeen jëf asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu وأسعى ثابت الأقدام بيقيني فلا دنيا الورى يوما ستغريني فنور